Covid 19 mbokk yi daleen ak jàmm ci magasin bi ñu jagleel wàllu mbas mi fii ci biir réew mi di waxtaan ak yéen saa su ne situation fi mu toll naka la ñuy def ba moytu li nga xam ne moo nekk feebar bi ndax boobu ba léegi mu ngi fii te mu ngi gën a doy waar gannaaw ay ndogal yoo xam ne tamit jël nañ ko fi loolu lépp dinañ ko xayma ci biir magasin bi nga xam ne moom lañ jagleel daan coronavirus fii ci. télévision Futur Média docteur Mamadou Ndiaye la ñu àndal moom moo yor wàllu fag wi ci ministre bi yor wàllu wér yaram bi ñetti nit nag ñàkkaat nañ seen bakkan loolu yóbbu lim bi ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci loolu am na ay cas grave kon dañuy ànd ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye mu defal ñu xaymay bës bi. ci junni ak juróomi téeméer test yi ñu jot a def téeméer ak fukk ak ñett ñoo ci positif.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 Mbour ñaar Rufisque ñaar Sacré-Cœur ñaar Bourguiba benn Cité Fadia am ci benn Cité Keur gi am ci benn Diamniadio benn jurbel benn Fann am benn Fann Résidence benn Fatick benn Joal benn Kaolack benn Liberté 6 benn Waaguñaay benn Ouest Foire benn Parcelles Assainies benn Pikine benn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 fekk fa Cheikh Anta Diop waaw Anta ñu ngi lay nuyu naka la mbir yi demee foofu ak examen yi. waaw jërëjëf Pape ji nga tey jii nag dañuy ñëw lu jëm ci wàllu examen yi entrée en sixième ak euh, cf e. ñu def nag benn tournée ci euh, département bu Thiès lu jëm nag ci wàllu examen yooyu ñu visité juróomi centre waaye nag li nga xamante ne nemmeeku nañ fa ki nga xamante ne moom mooy Pape Baba Diassé di inspecteur euh, d'académie bu Thiès nee na daal li fi gis dal na xel. matukaay yëpp daanaka jël nañu ko ba élèves yi def nañu seen euh, examen am naa ay élèves yoo xamante ne aussi euh, gis nañ leen ñoom it nee nañ daal sujet yi ren jii daal yomb na ndaxte am na sax ñoo xamante ne nee nañ daal dafa mel ne dañ leen ko may waaye nag li nga xamante ne aussi nemmeeku nañ ko gis nañ ne ren jii comme ni ko way laago yi daan sàkkoo at mu nekk ñu mett leen dans de bonnes conditions gis nañ waa INEFJA école Idrissa Diop bi nga xamante ne foofu foofu mooy seen centre daanaka matukaay yëpp jël nañ leen jox nañ leen aussi lu mel ni ay braille yoo xamante ne partenaires yi indi nañ leen ko ba tax na daal ñoom neenañ abuñu benn jafe-jafe ren lu jëm ci wàllu examen en temps ak CFEE. fi ñu dem fépp daal ñu gis ne. ci wàllu pédagogie ak ci wàllu jumtukaay yi nga xam ne moom la état bi mettre en place pour ñu xeex mbas mi am na fa jëm ci wàllu masque. jëm ci wàllu gel ak distanciation sociale bi benn élève par table euh, yooyu yëpp ñu respecté ko pour que ñu éviter daal euh, coron coronavirus bi ci ci biir centre yi euh, gis nañ ne aussi chef de centre yi fekk nañ leen fa surveillant yi mat nañ ñu ngi fa tamit ñu nekk INEFJA ci wàllu gis-gis dañ ci am ay jafe-jafe waaye am na yeneen candidat yoo xam ne ci wàllu dégg ak wax dañ ci am jafe-jafe mais centre yi ñu dem yëpp daal wax dëgg yàlla xale yooyu jël nañ leen condition yi nga xam ne matukaay yëpp yi nga xam ne waroon nañ ko jël pour dimbali leen pour ñu mën a def examen bi lépp def nañ ko ba am nañ yaakaar ne fi mu nekk nii xale yooyu ñu ngi def seen examen normalement comme yeneen xale yi tey ñaan yàlla rek ñoom tamit ñu at mi comme ñëpp fi mu nekk nii ci Thiès mën nañu wax ne examen CFE bi ak concours d'entrée en sixième dans le moyen fi mu nekk nii euh, tàmbali nañ te am nañ yaakaar ne dinañ ko dinañ ko jeexal ci jàmm ak salaam. noo tudd. Khadija. ban classe ngay dem. CM2. examen yi def ngeen ba pare. waaw. lan lañ leen jox. français. waaw. communication ressources et ah. soo ko gisee. yomb na. est euh, ngeen mesure barrière yi. nañ ko. raxas nañ suñu loxo si gel. def nañ posté nañ suñu masque. mais am ngeen yaakaar ndax ci examen yi. waaw. comme niñ ko gisee rek defe naa ne ren jii ci wàllu examen yi nag ak mbas mi matukaay yëpp élèves yi jël nañu ko képp kuy élève doon def euh, examen bi bi ngay ñëw nag say parent indi nañ la nga takk masque te laataa ngay dugg ci classe bi aussi raxasu nga ndox ak saabu kon nag euh, di leen jox daje subaak jàmm ci waxtu wi bu ñu jugee diwaanu Thiès ñu dem ba bët gànnaaru réew mi fi nga xam ne moo nekk ca diwaanu Matam fekk fa Ali Bandal Niang foofu nag disposition yëpp jël nañ ko ngir CFE bi daal di jaar ci yoon naka noonu lu tolloog juróom-ñaar fukk ci ay centre ñoo ci am ONG jàppale leen waaye leneen liñ ci mën a jàpp moo nekk ñetti fan a ngi amuñu contamination bees maanaam wàllu mbas mi Ali moo ñu teewal ci diwaanu maatam ak li ko wër Ali Bandal Niang gannaaw bañ la nuyoo ñu xam nag lan moo gën a fës foofu ca diwaan ba maa ngi leen di fay maa ngi leen di dalal jàmm ci région bu Matam tey nag euh, lu ñeel xibaaru miroir Covid 19 dañ koy doreek rek situation bés bi juróom-benni doomi aadama ñu ngi ba léegi tëdd ci lal centre de traitement bi nekk fii ci hôpital régional bu Matam gannaaw loole nag dañuy ñëwaat ci li nga xam ni mooy xew-xewu jamono bi muy examen entrée en sixième. xam ngeen ni ci door nañ ko ci biir réewum Sénégal gi yëpp diwaanu Matam itam kenn demu ñu des waaye pàcc bi ñu ci gën a intéressé mooy dugal loxo bi nga xamante ni yenn ci ay partenaires dugal nañ ko ci ndaxte te itam lépp luy jumtuwaay ñuy xeexee mbas mi jébbal nañ leen ko waa ACF nag di benn kuréel bu ñoom ñoo indi matériel bu am solo jébbal ko kilifa yore wàllu njàng mi ci diwaanu Matam ñu teewlu ki nga xamante ni mooy inspecteur d'académie bu Matam di Mbaye Babou. ndimbalu am am solo la commencé donc sant. Euh, ñi nga xam ne ñooy action contre la faim ndax xam ngeen ni depuis bu ñu commencé euh, li nga xam ne mooy réponse bi contre le Covid ubbi waat école yi ci ministre organisé que ministre dafa ni c'est vrai ministère ministère dafay euh, doté école yi te def na ko mu nekk dotation yu am solo waaye tamit nañu privilégier les solutions locales ndax ACF dafa action contre la fin dafa nekk euh, partenaire wu académie Matam te mu nekk partenaire bu am solo tamit ndax euh, euh, dafay dugal loxoom ci lu bare lu jëm ci cantine yi pour améliorer nutrition xale yi lu jëm ci santé reproduction des jeunes ak des adultes pour yee leen pour préparer leen ñu mën a am benn dund bu méngoo ak seen jamono ak bu méngoo ak ak seen santé te du am benn jafe-jafe ci examen itam gouverneur euh, organisé na CRD euh, le 12 passé 12 hmm, août ci CRD boobu action contre la fin biñ ko sollicité jël na fa ay engagement euh, gouverneur joxe na fa ay orientation te action contre la fin loolu yëpp mu ngi ci taxaw pour jàppale nu loolu moo tax Euh, ci matériel bi ngeen gis ni dafa nekk matériel boo xam ne am na solo. ci gannaaw bi ñu dégloo mbay Babou mi nga xam ne mooy inspecteur d' académie bu diwaanu Matam Yacine Ndiaye bokk ci ñi jiite ACF ci diwaanu Matam ñëwaat na ci lu waral jéego bi ñu teg ko fii ci inspection d' académie laata mu ñuy xamal ni dinañu def lu nu mel jébbal ko région médicale bu Matam. pour mën a appuyer les établissements scolaires jàppale leen ci besoin Covid bi parce que projet la boo xam ni. dañu ko financé woon léegi ñu mujj adapté les financement au besoins Covid donc moo tax ñu appuyer leen tous ces produits là pour ñu mën a dimbale élèves yi bu ñuy def examen mais également dinañ leen mën a jàppale bu école di tijji. ndax franchement ak Covid bi donc lii dafa nekk produit yoo xam ni ñoom ñëpp dañ koy soxla te comme action contre la fin dafa nekk une organisation humanitaire euh, boo xam ni depuis huit ans mi ngi dans la zone di répondre aux besoins de la communauté donc moo gis nécessité wu jël produit yëpp mettre ko aux besoins euh, à la disposition de l'inspection l'inspecteur du tra de l'inspecteur de l'académie pour que mu mën a jàppale élèves yi jàppale enseignants yi pour ñu mën a réduire un peu le tour xam ngeen ni kon épreuve entrée en sixième yi door nañu ànd nañu ak kilifa yi gouverneur préfet inspecteur d'académie ñu daal di war centre yi waaye li nga xam ni mën nañ ko firndeel moo di lépp luy mesure barrière maanaam protocole bi ni ko ministère de l'éducation digle woon bi muy ñëw fii fan yële ñu génn. effectivement noonu la amee ndax centre yi nga xamante ni visité nañ ko lépp luy dispositif mu nga fa ci teewaayu takk der yi kon ci tënk mu nekkoon euh, li nga xam ni moom la ñu dajale woon tey ci biir miroir Covid 19 ma amoon mbégte lool yéggee leen ko ma leen di jox di daje ëllëg ak yeneen xibaar. bu ñu jugee ci àlli Bandel ñaa dañuy dem tamit fële ci diwaanu Jolof fekk fa Mamadou Moustapha Ndiaye foofu nag ak li ko wër ñoom tamit ñu ngi amal lii di certificat ak entrée en ci diwaan boobu nga xam ne moom ñoo nekk foofu jamono ji lu ëpp ñetti junne ak xaaj ci ay ndongo ñu nga fa ak centre yu bëri yu am jamono ji waaye lépp lu jëm ci wàllu mesure barrière yi respecté nañ ko Mamadou Moustapha Ndiaye moo ñu le ak li nga xam ne moo gën a fës foofu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Pafar Gningue maa ngi lay fay examen CFEE ak entrée en sixième tey moom la ñuy waxtaanee ndax fii ci département bi Linguère am nañ 3479 candidats yoo xam ni tey ñoo xëy defi examen bi ci 23 centres yi nekk ci département bi fële nga xam ne ni moo di centre bu Ardosaye Sow bu Boulal ak Dayaly ak centre Ali Biga ndaw candidats yi ñu fa fekk ñoom nag ne nañ épreuve yi abordable na. épreuve bi moom neex rek la def. ah yi ga yi kaw yi gën gum moom neex nañ gën a yi gën a gum moom neex nañ baax nañ premier jour de la reprise des cours waaw neex na moom neex na teg bi neex na trop neex na ay apparition des yooyu noonu la doon wax ñi nga xam ne ñoo di examinateurs yi ñoom nag ñi rafetlu dispositif sanitaire yi ñu fekk ci centre bi ba pare nee nañ geste barrière respecté nañ ko. Ah, mesure barrière yi aussi vraiment waa Croix-Rouge aussi depuis ce matin ñu ngi ci jàppale. Euh, macha allah ñu ngi koy respecté parce que gos yëpp euh, en fait ñu ngi takk seen masque euh, le matin de bonne heure bi ñu ñëwee aussi ñu ngi doon raxasu ak ñu ngi doon raxasu donc ak eau de javel bi ak ndox eau de javel bi. ensuite seen ñi leen doon accompagner les enseignants yi leen accompagner yëpp indaale nañu gel donc vraiment disposition yooyu aussi macha allah macha allah quoi amul benn problème. fekk nañu aussi dispositif yëpp ñu ko teg masques yi gel yi lavage des mains vraiment yëpp ko fii au niveau de l' Sow donc amuñu benn problème vraiment. bon am nañu cent soixante sept candidats mais ci cent soixante sept yooyu am na fukk ak ñaar yoo xam ne ñëwuñu muy juróom-ñaari góor ak euh, juróomi jigéen. nga xam ne nii moo di Cheikh nekk inspecteur district bi nga xam ne moo yor arrondissement bu Sakata Jolof ak euh, sous-préfet bi di Yankouba Sow ñoom nag visité nañ centre yi ne li ñu gis dal na seen xel. wallaahi mbetteel gu neex a neex a neex wax dëgg yàlla. Euh, nin jàppe woon ne noonu lay demee noonu lay demee lépp mucc na ay fiñ ñu toll nii élèves yi ñëw nañ booy seet absence yi lu néew la épreuve yi nin ko tërale woon ci chronogramme bi lépp mi ngi demee mi ngi demee noonu ba fi ñu toll nii. arrondissement bu Sagata amoon na ñeenti téeméeri candidat ak fanweer ak ñett ñeenti téeméeri candidat ak fanweer ak ñett wax dëgg yàlla li ci bare bare bari ñëw nañ booy seet ñaar fukk ak ñeent ñoo ci ñëwul. ndaxte ñëpp tiitoon si contexte bi nekk bi. mais bu ñu defee tour bu ñett ñetti centre ba pare vraiment mbégteel bu mag lañu am parce que fekk nañ yëpp lu ñu jël si jël nañ ko muy président de yi anciens ñëw nañu à l'heure xale yi ñëw nañu am nañ cawarte parents yi jàpp nañ si kenn bàyyiwul waa santé waa croix rouge la sécurité tout le monde euh, ñëpp ñëw nañu daal pour jàpp si ndax mu réussir vraiment mbégteel bu mag lañ am si affaire li ñu appel si parents mooy nañu gën a góorgóorlu rek bon feebar bi moom comme feebar bi moo am moo waral affaire yi ñëpp tiit si. même bu paree tamit nañu gën a sàmm xale yi rek aar leen toppatoo mesure barrière di gën ko respecté voilà loolu daal ndig da ñàkk. mais gis nga faay saa ñu demee centre man ma fekk fa quelque rare jaaykat yi ñoo dama leen di dégager ça on ne les pas là-dessus parce que waruñu fa nekk bon sagar moom wax dëgg yàlla fekkuñu fa kenn di jaay mais fekk nañu benn nit di jaay bulal ak ñaar wala ñett deyaale mais ñoom dañoo mujj ranger seen bagage daal di ñibbi avant xale yi di génn. kon sant lal si yoolu jërëjëf Pape Fara kon nag tey li la leen indiloon fii ci seen xibaar miroir Covid 19 ñu leen jox dig daje ba beneen yoon jërë a jëf. Mamadou Moustapha Ndiaye jaajëfal ko bu baax a baax wéyal ci wàllu woowu ak sensibilisation bi ci loolu ngir respecter mesure barrières yi ak yeneen yu nu mel yëpp ndaw yi dugal ci seen loxo bu baax baax ngir mbas mi tel fee jugee ñu ànd ceeg Mamadou Ndiaye. jërëjëf Pape Fara Gningue maa ngi lay euh, nuyu euh, xeexu Covid 19 bi nag ñëpp ci jàpp. loolu waral actuellement nii ñëpp lépp luy association lépp li nga xamante ne ñoo si mooy mouvement nawetaan rawatina ñi nga xamante ne ñooy alliance nationale de lutte contre le sida ñoom tamit euh, ne duñ des ginnaaw jàpp ci fa yéene jóg ci xeexu Covid bi nga xam ne moom lëmbee àddina lëmbee fii ci Sénégal ci période yi ñu nekk nii. ñoom nag wër nañu ci yenn gox-goxaat yi demaloon nañu leen ba Wakaam ngir euh, dajeek ñenn ci population bi waxtaan ak ñoom wax gën leen sensibiliser bokkit tamit ci xeexu Covid 19 ñu dëgtal leen élément bi ci ñëwaat. tey am na ñoo xam ne ñoo ngi respecté mesures barrières yi dañ war a tàccu jël leen wane leen mais waxtaan ñoom également si lan moo nekk seen ay motivation ba ñu mën a respecté mesures barrières yi mais ci seen côté également am na ñoo xam ne respecté wuñu benn mesure barrière mais ñooñu également laaj na ñu waxtaan ak ñoom ba xam lan mooy seen ay euh, mbébét seen ay préoccupation yi tax mënuñoo respecté mesure barrière yi gannaaw ci loolu nag ñu jéem a xool nu ñuy waxtaan ak ñoom ba dellu si leen ñu ànd ak ñëpp respecter mesures barrières yi kon stratégie bi nekkul ñëw joxe information yu bees waaye fexe ba nit ku nekk te na nga toogee ñu fexe waxtaan a yow ba ñu ànd ekkandoo wenn say loolu tax ñu ut ay pexe di xool ni il faut ñu ut benn stratégie bu efficace boo xamante ni fi mu ne nii jóg jàkkaarloog coronavirus ngir fexe euh, génne ko ci réew mi mbas mi ñëpp d'accord nañ ne ndakaaru fi la wulee ñaay ba tax na lu ñuy def ci Sénégal buñ ci jiitalee Ndakaaru fexe ba mu am doole Ndakaaru yaakaar nañu mën naa am ay njeextal ci région yi jëm yëpp kon nag ku nekk na jàpp rek xëy yàlla nañu may ndam incha allah mbirum coronavirus nag léegi fi mu ne nii mi ngi gën di yokk fii ci Sénégal moo tax du ñu jóg di eh, sensibiliser eh, ñi nga xamante ne ñooy sénégalais yi ñu respecter mesures barrières yi takk masque yi mais tamit fexe nu ñu mën a teg ay stratégie yu am solo ngir fexe xeex Covid 19 bi ndaxte suñu combat ñun ñëpp te ñun ñëpp ci war a gën a mën a taxaw. diwaanu mbuur am na lu tolloog ñetti téeméer ci ay kaawu coronavirus loolu nag tax askan wa ñu ngi dugal seen loxo baax a baax ngir ñu respecté mesure barrières yi ndaw yi ak artistes yi booba léegi ñu ngi wëy di respecté li nga xam ne li nu mel naka noonu boole ci ay sensibilisation ca Mbour Abdourahmane Diallo lañ fay fekk. jàngeen jëf ci seen seetaan télévision Futur Média ñu ngi fii ci Mbour di dëkk bi nga xam ni coronavirus bi am na fi doole li ni mel a tax ndaw ñi daal di dugg ci wàllum sensibilisation bi. nit ñi ñu takk seen masque parce que masque bi nit kee ko moom avant population bi di ko moom parce que boo takkul sa masque yow aaroo sa bopp mais doo aar ñi nga nekkal moo tax tey ñu bëgg tey nit ñi buñ xaarti ñu leen door dóoru buñ xaarti ñu leen di jàpp di yóbbu gendarmerie buñ xaarti ñu leen di jàpp di yóbbu yóbbu yóbbu kaso euh, buñ ñu leen di xas masque bi ñun lay protéger d'abord kon dina bëgg nit ñëpp ñu takk masque pour que ñu mën a sauver suñu askan. parce que pandémie bi tey foo ko natt weesu na ko surtout département de Mbour si liste rouge lan bokk comme si liste rouge lan bokk nag. te président woo ndaw ñi di taxaw leen moo tax tey ñu ñëw fii pour répondre à l' appel du président et département bépp la ñuy wër fépp luuma ne fépp askan wi ne dañ la fa fekk jox la masque waxtaan ak yow pour jox la message bi nga xam te ne tey wala ni pandémie bi dafa law te law na si département Mbour baax a baax a baax si loolu nag dañ si remercier le préfet du département de Mbour bi ñu accompagner di remercier la mairie de Sandié bi nga xam moo ñu accueillir tey dimbali ñu jàppale de la jeunesse ni ko mbuur dafa mérité benn traitement particulier coronavirus bi tax na tamit ba pouponnière bu Mbour daal di am ay jafe-jafe yu metti li ni mel tax ay doomu Mbour ay artistes ñoom ñu daal di dugal seeni loxo ngir dimbale ñi nga xam ni ñoom ñooy xale yooyu. tey jii nag duñ ne ñun ñoo def lépp sénégalais yi ñoo def lépp dañ leen koy wan parce que yéen a ko def yéen a joxe yéen indi seen doole yéen a wane seen bopp ñëw nañ fii bañ fiy ñëw di def suñu don ci daara yi. ñëw indi fii parce que dañ ko xaaj xaaj jox daara jox daara jox pépinière ñëw fii pépinière bañ leen joxee ba pare dañu taxaw si bunt bi lañ yem ils nous ont dit que ni ñun kat depuis corona bi dañu tëj bunt yi kenn sax du dugg parce que tellement que dañuy bañ kaa contact yi yéen ak xale yi ñu xam ni nag kon ñii ni ñuy wax ci tele bi naan dama dama dama nan lañ koy dama impacté dama impacté mag mu impacté xale bu impacté moo ko gën a donc kon loolu mooy waral ni kon fii la lépp war a ñëwee bu état di joxe budget di joxe affaire na bàyyi ay ndaw réew ma bàyyi ay doomu réew parce que ñi ci doomu réew ci xale yu réew yi lañ bokk suba mën nañ nekk président mën na jóge fii donc yéen ñëpp na ngeen ko bàyyi xel muy pouponnière bu mënti doon bu Médina bu Mbour bu Kaolack everywhere na gars yi def seen doole. yii yenn la ci ay xibaar yi nga xam ni dañ ko jëlee ci département bu mbur di département bi nga xam ne lu ëpp ñetti téeméeri doomu aadama coronavirus bi. sonal na leen. jërëjëf Abdourahmane Diallo ci xibaar yi am solo yooyu nga jëlee ko ci diwaanu Mbour ci wàllu sensibilisation kon mbokk yi loolu moo gënoon fës ci pàcc bu njëkk bi ñeewal mbas mi fii ci biir réew mi bu ngeen taaxit loolu léegi gannaaw bàkk ba ñu dem ci li gën a fës ci xibaar bi ci réew yi. gannaaw bàkk ba mu ngi noonu nag dañuy dem ba diwaanu Côte d'Ivoire daal di dem fekk fa Cheikh Ibrahima Fall làmp moom nag wax nañ ñu palais culture ba dañ koy waaj ubbi nekk foofu ca diwaanu Treichville bu ñu ko ubbee nag ñu mën produire amaat la ñu amoon waaye nag lépp ngir respecter mesure barrière bu ko defee ñu mucc ci mbas mi Cheikh Ibrahima Fall salaamaaleykum laa lay wax. maaleykum salaam ñu ngi lay nuyu du nuyu suñuy téléspectateur ñu ñëwaat suñu mission miroir Covid 19 ñu dugg tey nag ci palais de la culture bi nga xam ni euh, njiit yi dañoo fas yéene ubbi palais bi léegi. juróomi saal la ñu fa fekk saal bu nekk dafa ànd ak ay mesures barrières am yi nga xam ni noonu la ñu def pour dugg fii ngir gën a mën a xeex mbas mi fii ci palais de la culture. Je suis Bro Augustin, le directeur technique du palais de la culture. Le palais de la culture, c'est palais de la euh, culture bu euh, euh, Treichville doon édifice gu mag bëri ay salle lool ñu ngi fi sax gis nga ci salle gu mag nga xam ni 4000 places la waaye li ñu jiital ci mbir mi mooy rek sorilanto bi loolee lu obligatoire la. boo xoolee sax euh, saal yi bu ci nekk nit ña cay toog dañu koy xaaj jamono ji maanaam bi nga xam ne quatre mille places la jamono ji euh, deux mille place rek kon lañ ci nangu ay nit euh, dugg ci loolee rek ngir sàmmanteeg mesure barrière yi nga xam dina tax ñu xeex jàngoro ji di mbas mi am nag dispositif it ku am solo gu ñu teg rawatina booy dugg ci biir palais bi ndax am na gel savon ku ci nekk rek lañ ca bëgg nga def ko waaye it laaj na nga sol masque boo amul masque it ñun dinañ la ko jox jëli sa température euh, xool euh, sa tàngoor yaram fu mu toll bu ngeen xasee bu dugg it ba ci biir euh, bërëb bi lépp lu jëm ci dajaloo ak tàncaloo googee dañu koy bañ li nag doon ay jéego yoo xam def nañu ko ngir gunge kilifa yi ci xeex li nga xam mooy coronavirus fii ci Côte d'Ivoire ndax gis nga boobu ak léegi jafe-jafe it ñàkkul. À la fin, nous nous empressons d'évacuer la cour pour éviter les regroupements, pour éviter les rapprochements des uns et des autres. Tout ceci pour lutter efficacement contre la COVID-19. 19. fii la ñuy wàcc suñu kàddu di leen jox rendez-vous ci beneen numéro di nuy suñu téléspectateur di ñaan yàlla sans borom tàggale ñu ak corona bi. Cheikh Ibrahima Fall tamit jaajëfal la bu baax a baax ci xibaar yu am solo yi nga xam ne la ñu jëlee ci diwaanu Côte d'Ivoire mu ñeel mbas mi ci bi ci réew mi naka la ñuy def ba maytu li nu mel mbokk yi loolu moo gënoon fës niki tey jii seen miroir Covid 19 lépp ngir daan coronavirus fii ci groupe Futurs Médias gis ngeen téeméer ak fukk ak ñett ñoom ñoo ci am lii di mbas mi ñetti nit ñàkkat seen bakkan téeméer ak juróom-benn fukk ak benn di jaale seeni i mbokk di ñaan yàlla mbir mi des fi saa su ne rek du ñu taay di wax nga ñàkk sa bopp ñàkk sa moroom loolu nag moom moo gën a nekk li nga xam ne moom moo ñuy aar ndax traitement amagul ba léegi di raxasu bu baax say loxo jël ay gel naka noonu di takk masque saa su ne ñu respecté li nga xam ne moom la nguur gi wax ci wàllu transport beeg yeneen bërëb yi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo fi nekk kon mbokk yi incha allah suba ngeen ànd ak soxna Awa mbay mu daal di ñëw dégtal leen lii di miroir Covid 19 jàmm ak jàmm.